waaw kon gars yi gis ngeen nit ñaa ngi noonu nit ñaa ngi nii dafa bëri nit ñi dañu bëri nit ñi dañu bëri nit ñi dañu bëri nit ñi waaw da ngay xool ba sa bët waaw ba sa bët waaw nga xool ba sa bët waaw ay lépp ay nit la waaw la Macky saay saay la nañu respecté suñu Sénégal suñu société yëngatu na suñu société yëngatu na loolu la gars yi di wayal Macky de waaw Macky saay saay la nañu respecté suñu Sénégal gis nga ko waaw yëngatu na suñu société yëngatu na mi ngi noonu kon mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu